Birama na nga def. sant bu baax xam Mamour di Padoir moo lay nuyu di la siyaare. ah delloo siyaar Mamour. ah di siyaare bu baax sama ñetti waa si foofu di ñaan gudd fan ak wér ak xéwal ak Maba ba ca di ñaan ñëpp xeetu jàmm yàlla def ko mbas mi nag bare gi. Hmm. ni ñu koy waxee nii metti na lool ci ëpp na. matuwaay yi daal bàyyi boog kenn ku ne jël ko mais Sénégal yi dafa mel ni li ngay wax lépp lu dugg seen nopp parce que ñu ci bari doo leen gis ay masque moom waxul ñu waxam ñu ngi àndandoo di di def lu leen neex mais nag nit ñi moom wax lañ ci man ak état moom képp koo xam ne defoo ko ba dajeeg mbas mi da nga xam ne liñ la wax dëgg la ñu ci bari dañu gëmuñu ko sax genn wàll gi boo waxee far dañu mel ni li ngay wax dégguñu ko mais nag sangulu boobu ba set yaakaar naa ci ko la koy wax ba gën sa dawal mbas mi ñëw nga lànk du ma daw ah dañ la bàyyi gis ak Sénégal yoo xam nga ñu li xaw a moom da ngay wax ba waaye doo ci mën dara kenn du si jël ay matuwaayam jël leen seen i wax nañ ko ci rajo bi guddeeg bëccëg subaa ngoon ba ñëkk ñëwee ko woon mais jàngoro ji dafa nekk lu tasaaroo ci àdduna bi loo xam ne kenn mënu la cee wax lenn mbirum suñu borom la kon nag bay boo kon ne ku ne daal yaa ci mën a waajal sa bopp jël say matuwaay booy julli ji nga jël say mas jël sa programme bépp xam ni ngay demee ci jàmm ñëw ci jàmm loolu daal bu ñu ko defee suñu borom mën na cee def dolli comme ñaan yi nga xam ne xamee woon nañu ko Sénégal ci kilifa diini yi ni bañ koo bàyyi continuer ko ca xam ne euh, mbas mi ma ngi fi ba léegi ak postage yi fi nekk ak borom xam-xam yëpp nga xam ne loolu rek mooy seen liggéey ci la ñuy dox ci ñuy dox bu dégg ba ci subaa ngoon di ñaan yàlla jàmm daal ñu passé ko am nawetu jàmm ak salaam bu sedd guy dara bañ a ayib yal na nu ko yàlla defal defal ko ñëpp ñëpp julli jàmm ñëw jàmm am benn ndox defal ko ñëpp ci dara yonent alayhi salaatu salaam di siyaare bu baax soxna maam xarit bàkk ci Tuubaa di ko ñaan gudd fan ak euh, ko nga xam ne ci moom ci social rek lay dox bu ñu ne sëñ Murtala ci social yaakaar naa moom rek la ñuy tudd ndax moom moo koy def guddi di ko dox bëccëg di dimbali nit ñi ak doole yi kon ñu ngi koy sant baax di ko gërëm mu yàgg ko man yar koo fekkee jërëjëf waay jërëjëf Mamor Dia ca Padoa ñu daal di ko jaajëfal jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. allo. waaw. maaleykum salaam. sëñ bi noo tudd ak fooy woo. Adama. man la Mamadou Wade Kees. ah Mamadou Wade yow. allo Mamadou yow la ñuy teewlu waaw si mbas mi laa bëggoon wax waaw. yaa ngi ci biir waa waaw xam nga mbas mi dañ see war a def jàngat ak tabaski bi di ñëw. xam nga tubaab dafa ne le sucre de diabète. on a arrêté les cours en cause de woy sama ndey j'ai mal au ventre. est-ce que il fait division pour attirer les élèves. ça fait deux jours qu'on en parle. la guérison est venue quand le médecin a parlé. on va lui donner des calmants si le s'il n'est pas calmé on va passer à la vitesse supérieure. on va l'opérer. Le pharmacien connaît mieux les médicaments les médecins. Depuis quand le sucre diabétique soigne un mot de ventre ou bien un mot de tête kon feebar bi nañ leen si def tey attention comme sax xar yi dañ ñëw dañuy ñëw te ñu ngi si wàllu mbas dañoo war a dem si viterinaire ñu leen di xool man Maodo Wade ni ma ko gisee mooy il faut que rek ñu ñu déglu su déglu suñu docteur docteur yi quoi. Hmm. parce que docteur yi ñoom am na loo xam ne ñoo ko xam. sinon rek mën naa am daal. Hmm. waaw taw bi yàlla na ko yàlla wàcceeg jàmm daal. Hmm. jërëjëf. baykat yi soxla nañ ko fi mu nekk daal. jërëjëf di wadd woote foofee ca cees ñu daal di jël keneen mbas mi la ñuy waxtaane lu jëm ci wàllub wàccaayu tabaski bi ak it la xew foofee ca seem an ñu daal di ko nemmeeku itam ci yeneen diiwaan ay gune daal di jël xotti seen kay rajaxe taabal baax yi. ban taxawaay ban jàngat ci 88 628 98 98. salaamaaleykum asalaamaaleykum. aleykum salaam. Ah, Birama Ndiaye. waaw ah, maa ngi fi alhamdulilah maar. maa ngi lay nuyu di nuyu Alassane Wade mi ma dugal ak waa Sud FM yëpp. ñëpp a ngi lay fay. di kontaan ci seen rajo bi ni muy doxe mhm. ah maar waaw. maa ngi ñëw ci wàllu mbas mi. Mhm. mbas mi d'accord am na ci àdduna bi. ku ne comprendre na ko fii ñu nekk ci amerique moom li fi amee ba léegi gouvernement bi ñu ngi dimbali askan yi ba fii may wax ak yow tey tey tey rek li mu génn waat ci alal dimbale waat ko askan yi kenn mën laa wax nu mu toll billaay wallahi man du ma caaxaan li may wax ay chèques yu duun la génne di ko jàppale kan Macky Sall bu dee dafa ne mbas dafa am Sénégal ñu nekk ci jamonoy tabaski dafa war a génn xaalis bu bëri tuur ko ci dëkk bi nit ñi mën a préparer tabaski su ko defee ñu utaale ay masque bu julli jotee ñu dem julli ñëpp ñaanandoo yàlla mbas mi jóge fi jeex dootul ñëw ci àdduna bi waxantuma laa Sénégal moom mënul jóg di def ci wër di def politique ba pare di mobiliser ay nit di ànd ak ñoom di def tournée mu pare ci loolu ba xam ne sénégalais wan nañ ko gannaaw opposition bi bëgg a jóg pour def tournée mu indi leen mbas ba pare bëgg leen a baare seen doxin loolu du démocratie loolu du démocratie nga nit dangay gore te lii mu nekk day jeexal ëllëg ki ñëw yàlla rek ku ko xam na bàyyi ñii am seen jàmm dox seen dox wax ak askan wi su ko defee askan wi déglu leen ëllëg bu élection locale ñëwee ñu set ku ñu choisir bëgg ko ñu teg ko fi mu gën na doxal réew mi lool mooy jàmm parce que ñun jàmm rek la ñu ut mais ut ñu leneen. di sant waa Sénégal di sant waa rajo bi keroog bi rek ante bi yàq ko ba léegi. def fexe ñun ba defaraat ko man maa ngi jéglu nag kàddu yi ma fi jaaraloon mbërki dem damaa juumoon maa ngi jéglu ñëpp. jërëjëf di leen nuyu di leen jaare naa leen wan loo maar américain forever. jërëjëf Mar woote ca Amérique ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum allo. allo. waaw sëñ bi déglul ci téléphone bàyyi rajo bi. fayal rajo boobu nga déglu ci téléphone bi. waaw waaw d'accord. acca bisimilah Thierno Birahim na nga def. sant alhamdulilah. maa ngi en direct. waaw yaa ngi en direct de kooku. waaw waaw man Mbour laay wootee. aha noo tudd. Moussa Diop. aha Diop yow la ñuy waaw. waaw mbas mi de moom caaxaan jëlewu ko fi de. waaw hmm. ah, parce que jikko yi moo tax mbas mi du fi gaaw a jógee. Hmm. mbas mi moom. Hmm. yàlla xam ne dafa jógee léegi ñun ñoo jikkoo jikko bu doy waar hmm. te man nag benn politicien gën du ma gën a kii sama santé man politicien bu ko neexee def ay mouvement yi def lu ko neex mais man maa yor sama santé bopp maa xam li ma bëgg man néew doole la ma xool li baax ci sama santé ma def ko hmm. mais du ma topp benn politicien mu ngi def naa nga ma koy topp noonu non non parce ñun ay baa doole ay néew di doole lañ ñoo war a xam ni ñuy dundee hmm. benn politicien yoru sa kii ñoom bu ñu feebaree dañuy Allemagne fu leen neex ñun amuñu doole ñu ñoo ñun askan wi ñoo gën a war a xam suñu bopp ñu bàyyi affaire politique affaire politique ca mbas mi Birahim mhm. yàlla xam ne dafa gaaw a jóge mhm. jikko Sénégal yi moo doy waar maa la wax lii tey mhm. yàlla rek moo ñu ci mën a aar mais leneen kay mënu ko bu doo jikko yi rek moom dafa jóge moom waaw ñu ñu ngi kontaan ci émi kii bi. Mhm. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf monsieur Diop foofee ca Mbour ñu daal di ko jëfal jël keneen ci 88 lay doon 628 98 80. asalaamaaleykum waaleykum salaam. Euh, Cheikh Brahma Ndiaye. kooku. ñu siyaare Babacar Ba Amérique Ba. bëggoon a bokk ci débat bi rek. waaw di di rajo Moussa Gueye Ousmane Sonko koy félicité si di ko ñaaral ndax sa borom bu may bëgg fot ak ak li ñu ci réew mi yëpp sa borom bi fekk li ko ñaan sa borom musal ko ci ayu noonu. waaw di di di sañ rek ci kii bi presque kii maanaam élection yi. Benno Bokk Yaakaar képp koo xam ne. Babacar dañuy bi. thème bi xam naa kon dama koo tara dama yaakaar rek. Ah, non non tey moom déedéet tey moom waxuñ ci waxu élection. ah ah. ma ne tey moom waxuñ ci waxu élection mbas mi la ñuy waxtaanee wàccaayu tabaski bi. ah mbas mi ak wàccaayu tabaski bi ok d'accord moom li wax mooy mooy président moo ko fi waaw président Macky Sall moom moo moom moo fasar fasaare mbas mi ci àll bi ba te ñëpp jot ñu ni dana yàgg boo xamante ne nii kenn pratique doon mu yàgg képp fu mu jaaroon rek nga waaw bari tabaski gi tam ñu bàyyee xel xar yi am na euh, euh, comme ça euh, yi nga xam ne corona bi jub na nañ bàyyee xel xar yi ñuy jënd ñu xoolaat baax a baax a baax suñu gisee xar moo xam ne ni wóoluñ ko dañ koy bañ a bañ a daal wala ñu bañ koo rey daal wala ñu yóbbu ko ak vétérinaire mu xool te vétérinaire tamit taxaw dem daral bi xool xar yi daal di test xar yi di xool ba xam buñ ci benn xar bu am feebar bi rek di jàpp ne xar ya fa nekk yëpp mën nañ ko am waaw peut être dañuy dédommagé seen borom sax ñu dédommagé ko te xar yooyu faj jërëjëf. jërëjëf Boubacar Ba foofee ca Amérique du Nord ñu daal di ko jëfal jël keneen. ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum 628 98 asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam Birama Ndiaye. waaw kooku. Mamadou Diop la AIBD. aha Diop waaw. na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. ñoo ngi sant alhamdulilah Diop. jàmm rek waaw corona bi de fan yi moom gars yi ñu ngi ciy wax rek waaye ñoom. Mm. Euh, wax gi. Mm. Euh, dañ ko bëgg a sensé. ndax ñoom Macky Sall bi corona bi ñëwee mu jël ay matuwaayam lépp lu mu man mu def ko ci ci premier mois bi yaakaar ne ndax ba mu jël décision pour ne nañu garde nit ñi nañu leen wutal lu ñuy lekk ak lu ñuy naan booba temps pour yaakaar ne ne lu mën na jeex ci en un mois comme nit ñëpp ni ñu ko yaakaare woon la woon bi ñu demee ba foofu échec itam mu continuer waay consigner nit ñi nit ñi ñoo dem ba yegg foo xam ne fii mënatuñ leen a téye léegi ñoom ñu fut ne génn ni dem ñii di leen ñii di leen influencé di leen di leen wax guddeeg bëccëg léegi vaccin yi ñëw bi vaccin yi ñëwee léegi au lieu kon ñu dem vacciné ji ñuy génn ci seen seen seen seen kii nu mu tuddee sociaux bi seen réseaux sociaux yi ay mu nekk vaccin bi nii lay demee vaccin moo ko defee nee lay demee nee lay demee fi mu ne nii bërki dem rek bi ngay xoola xoola bi nga xoolee Angleterre ñaata nit a fa nekk ñëpp di di dajaloo di seetaan ndax ñoom ñëpp vacciné nañu ba pare temps boobu bu fekkee ni ñoom bàyyi nañ nit ñi bañ leen ñu dem wax vacciner ji kon ba nga ni affaire bi dina mën a ndax li ñu gën a bari kon dinañ vacciner mais dem nañu far ba léegi vaccin far jafe sax boole ci ah léegi loolu yëpp moom mu dem bay am nañ ne affaire bi ñun il faut ñu nekk ak moom wax leen ne ne affaire bi nañ nekk moom waaye nañu wut kenn ku ne na jël ay matuwaayam ah ñu baal yi bëgg a commencé nag retourné ci ñoom ñi xam ne ñoo influencé woon nit ñi pour ñu génn ñu bëgg a retourné nag nee naan léegi Macky Sall fi indi lii wala moo nit ki da ngay da ngay da ngay da ngay waaw da am benn affaire boo xam ne bi boo ko gisee da koy gisee noonu continuer boo mais boo waxee li tey ba léegi nga wax leneen loolu itam du ko arrangé nga fi mu ne nii corona bi nag kenn ku ne jël say matuwaay li ñu leen mas di wax ca départ booba léegi rek yoral say masque boo demee fu ay nit nekk nga yor ko boo nekkee ci oto yi nga yor ko protéger sa bopp fi mu ne nii amul kenn ku ci mënati leen. Mm-hmm. jërëjëf Mamadou Diop ca AIBD ñu daal di ko jëfal jël keneen ci 88 wala boog 33 841 22 33 salaamaaleykum. maaleykum salaam Birama. waaw. ziar nañ la baax di nuyu sa technicien. delloo ziar Matar Lam Gueye di rafetlu liggéey. Matar waaw Birama. waaw. Birama sax ay variant delta euh, variant euh, indien. variant Macky Sall la la wax bokk pour mu leer. loolu mooy wax ji. Sénégal yi li ñu waroon def lépp def nañ ko daaw am na ay événement religieux yu gàmmu Tiwaawan amul daaw gàmmu yu bari daaw amul korité daaw kenn korité wul sa kër la majeure partie boobu seen ay kër la ñu korité mais demuñu demuñu seen ay village natal lan moo taxoon consignes yu ñu yu ñu yu ñu yu ñu technicien de la santé sénégalais yi def nañu ci au moins quatre-vingt pour cent le président lui-même moo toog bu mu nekk mu ni xeeru nañ dudd ak moom ay ministres am dem fee di di di organiser ay tànn beer ñii di ta organiser ay sabar mu xëy xëy au bon moment taal ay otaan yi def def tournée économique pour que deful tournée économique caaxaan politique la doon def ci àll bi ba affaire bi ñëw di propagé wu ñuy bëgg ci sonal nit ñi Sénégal yi pourquoi duñu ko wax moom la ñuy wax il est le responsable principal et puis les techniciens de la santé ñoom dañoo man damaa jàpp ne sax ñoom dañoo yeb sénégalais yi parce que xawoon nañu lan moo koy xaar bi muy annoncé ni dafay dem di si quelques jours day dem ci àll pour def tournée économique te xamoon nañ ni visite politique la doon def waroon nañ ko alerter dañuy bàyyi ba affaire dépense ñuy soog naan ay Sénégalais nañ jël seen ay ay mesures yan mesures la ñuy il faut qu'on soit sérieux Macky Sall na respecté Sénégalais yi te sévérité man ñoom lay interpellé nañ jël seen ay responsabilité du gàmmu du màggal du dara leen di tere organiser ren nañ lépp voilà merci beaucoup. jërëjëf Matar Lam Guèye Kër Sega ñu daal di ko jaajëfal